bàyyi ko sa jabar da nga war na xaar ba ma teg a moo gën. dëgg la hey deg ma ah loo wax gis nga man mënu maa toog di xaar yow man dama la bugga lu may gis nga yàlla dee wax ne def dara da def mu gaaw di si dugga dama doon jéem a def mu gaaw rek balaa seytaane di si Wah, waaye li kay seytaane dugg na si ba pare. lu seytaane. seytaane mu si di. man maa yow ngeen nañ ba pare dañoo sey ban seytaane. déedéet loolu wartoon am jaaduwul. dañ dañ ma. waa ji dañ ne waaw may nañ waaye Dakar suma diggante yow loo yàkkamti ma ne seytaane laa bañoon mu dugg si rek moo ta waa léegi seytaane dugg na si seytaane oh waaye suma jabar nga ne seytaane ma sa jabar yaay suma suma rakk ji yow lay ah, la ah, def nii ok loolu kañ moom des na si yow bi kañ des na si yow rek ah mu ne xaal ngaa jéem indi affaire. su naka ñu tegaat beneen lifin. Ah, non mu ngi mu ngi cool booy mu ngi cool. <coughs> ay booy booy naka li la waxoon nag booy mbaa fàttewul ko. non loolu kay moom bu si am ñaari xel man lu ma la wax rek foog ma def ko. yow léegi da war da war a commencé liggéey de booy. dimbele maire bi maire bi sonono trop boy sa school fees yeb moko fay no bu wori lolou kan <coughs> no na def ma set elek ma ngi wara dem fi kotu ba suma fa joge rek na jaar ci office bi xam nga ci office wa non la ah boy solo yalla taccu da nga fecce so feccu bam bayyi bala mo taccu wat nga waru na lolou boy maire bi sonono de mom du de wax dara jambe fa def rek maire bi sonono trop asalaamaaleykum. Ah, maaleykum salaam. jëm ak jëm. yow lay def suñ lu génnal génnal bëgguma la fekk génnal suñ kër génnal génnal génnal génnal génnal si biti génnal suñ kër génnal génnal waaw lu ma gis ma la man di stop génnal suñ kër génnal génnal génnal génnal génnal si biti génnal génnal bëgguma wax génnal génnal suñ kër dama toog génnal dafa génnal suñ kër dafa génnal suñ kër waa xaaral dama dem nga toog génnal si biti bàyyi suma doom di rey nga ko xam ne waaye yàlla bañ na génnal laa wax génnal si biti génnal kole fi geenal lo ele geenal geenal ñaa sa kilifa bay buga de or kat bile dama toog ma ne geenal laa wax geenal am na toog geenal buga rey suma doom ji waaye yàlla bañ xale yu jigéen ñi da ngeen toog seen kër ndaya seen kër bàyyi ñàkk kilifa bay buga dee waaw demal na nga toog demal toog du ma ko toroxal yow laay toroxal soo yeboon na nga ko sa doomi rek na ko waxal bala maa ñibbi si kawam ba tey gombaagu ma foofu. ah bi lu ma def yëpp booy ma wax mu ne booy da nga kóol booy. kii dafa am loxo te dina ko def loo xam ne ah waaw booy yow sa yaram bi diggante nga fi mu nekk nii ah. yaa ngi des jóge hospital est nañ kóol booy ah kóol ma yeb sa dégg na ah. Jim jërëjëf Jim Jim ñu naan ndoxaleku jërëjëf. pour wàll ne léegi fu mu nekk nii yëpp mut na léegi. foo mel ni fu mu nekk nii employé ne la. Ah, dina la boole suñu scientifique unit bi dina la wan liggéey bi naka la demee ah, ba pare dina la jox sa oto dina la jox oto moto bu esport ba pare dina la jox dina la jox kër dina la jox tamit lépp lu nga xam ne dafa aaju si liggéey bi ndax liggéey bi dafa dem by time. xam naa fii balaa juróom-benn weer si kanam dina la. jema yoni amerika iya. ina angal tira yoni nga dem yoko fer sa janga ina xam sa ligi yoni su tank ber mo li yeb dang ko sax mo mo lako jox jeuf Mr Fay kontan, na torop jeuf wax deug yàlla kontaan na ah man di len xamal ne mm. bu sobe yàlla mm. yene di ngeen kontaan ndig liggéey bi dina ko def nu mu mm. bol si ni ngeen ko jeuf Fay ko Mr Fay waay mana no fini nili ni ke ni mun e fete hay ngam ma tay ni halal dama ne ke lire nine months deglu nak man dama nga do fete ay deglu nak munu lo kay ma wan la kontaan xam nga luñ de wax torojo morojo Baiklah, dama borojo xorojo waaye nag waaye wala waaye yow defal nii nag tey ma wax la déglu ma déglul nga wax wax nga ne suñu account bi ñaata ci nekk dégloo lu la wax ma ne tout million do do do do dollars yoo xam nga ne ah mami jéndu noonu mami jéndu noonu ma xam loolu Fi ya fi mën demoon. fekk ko si nga téye si dollars yi. tegaat dollars yi rek laa daan téye. waaye xoolal ku mel ni yow jeeg mel ni yow daal téye xale bu ndaw bu mel ni man di ma defar. ma ne ma nag dafa am lu xew. mooy dama am ko ees. dama. ah ko ah, dama. dama am ko ees. Ah, <laughs> hello. aajo nag ah docteur bi mu ne lan docteur bi mu ne yaa ngi la biir three weeks waaw ok ma ne am maa ngi ñëw léegi nii dafa am si yu ma nekk rek waaye maa ngi ñëw léegi nii si lu mu bañ a yaakaar daal maa ngi ñëw léegi waaw waaw ok su jabar dafa hmm. kan la salm three weeks yow yaay may góor mané may góor déglu ma defal defal di dama kontaan uy uy uy uy waa yow uyu xam nga ma jaar ah uyu ma ma ngi laa dégg soo def ni ak caractère gi dee génne ci biir daf ma dee jaaxal soo ni nga def ci salma <laughs> das naa la mooy lii rek noonu la So much sugar. wax loolu. suma sugar mami suma sugar mami sugar mami kay foral ma kay defal suma àddina yaay sama mami. yaay kan da ngaa bëgg a Kaal lan dama la gis yaangi dug ak niw ci bir ñax bi te jigen la dede mané te yàlla sa kii meñ légui dañu def dañu dem ci station bi yaang ma diga ah wa man amul ben wax fi nañ dem so much sugar mami so much sugar mami bëri yi nag bu ko gis nii ndax am cappe yi woon na ba bëri xoolal comme thousand million man xaw ma sax doo dee xam maa ngi am xaalis ndax am maa ma bàyyi am am ma bàyyi am alal ah. waaye it mami jéen yokk ci salaire gi dara. waaw waaw yoo tam nag boo ah, ah, ah, nga xam nga xam laa war a def sax mu nekk dama war a daw. daw non delluwaat. yow you a stick Salma parce mu ngi expect sa doom non bàyyi ma dem toog America at least benn six months toog America rek after ma ñëwaat. you want to betray that guy. dama bëgg a relax yi nan nobbi yëpp génn waaye foofu ma demee tubaab bi doon di ma nobaat mu bari waat foofu noonu. <laughs> yow nag danga jar nii de. dama jàpp te tubaab bi sax ñoo ma di gën a sonal ñoom <laughs> dama daw ñëw si Africa. laa jël yee xaaral ma jël ko waaye lii bi yow ma ko de hello. waaw kooku àll la loolu. hello maa laa dégg kooku. waaw maa laa dégg ku la waaw man laa Winston waaw nga nga la waaw waaw waaw waaw mu ne la mu ne la nga waaw waaw ok yow foo nekk nii am am nga joma phone number ma laa mën a hello hello Hello?